Yes TV, la première scène qui الحمد لله الذي أرضى أرضه بأوليائه وبين بهم تريحة العداة أنبياء وتريحة توحيد وإبادات لرب أربابه السلام عليكم ورحمة الله مبوكي جلدي مبوكي طالبي السلام عليكم ورحمة الله مبوكي أدنى السلام عليكم ورحمة الله مبوكي جيس مبوكي képp koo xam ne rek soppe nga wala ngay xarit wala ngay am di jàmm nu ngi leen di nuyu bu baax a baax di jiital ci nuyoo bi mbooleem kilifa yi nga xam ñu ngi ci dëkk bi muy kilifa diine yi ak kilifa aada yi buñ ko waxee rek tënk nañ ñëpp ci biir loolu di sant bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom la liggéey bu rëy bii muy daayira yi nga xamante ne ci ndigalu Abdourahmane lañ ko liggéeyal Touba fas yéene liggéey lislaam fas yéene liggéeyal mboolem rek koo xam ne doomu aadama nga kon nag ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di bañ a lim waaye jëwrin yaa ngi nii toog ku ci mel ne jëwrin Bañik ak jëwrin Souleymane bu ñu bu ñu toogee rek mel na ni ñëpp teew nañ ak sëñ Abdou Pen sëñ Matar Mbay muy ne ak soxna faatu soxna Xujja ñoom ñëpp di ay jëwrin ak ñi nga xam ne ñëwuñu ñu ci mel ne ñoom soxna Ndey Mareem ak soxna Ameek ñëpp rek waa daayira bi yëpp ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur sa sant di wax ne at mu nekk dañoo baaxoo di gis ñu fiy ñëw ci ndigal lañuy ñëwee ngir lan faj si ndax ku ne xam ne ne at ba at janvier ba janvier la ñuy ñëw indi équipe bi indi garab yi indi lépp toog fii def fi fukki fan ak juróom di faj si ndax loolu ndigalu sëñ Abdourahmane Mbàkke la ndax dañoo kat kon bis at mu nekk ñu gis nit ñi di ko xaar ak doomu aadama yi nga xam ne am na ñoo xam ne seen wér-gu-yaram mayu leen ñu mën a jug ñii tamit seeni coono noonu la ñuy xamuñ wan yoon la ñuy jaar ndax ku ne xam ne ni dakaar rendez-vous xat na te metti na ñii dañuy bindu ay at ñii ay weer ñii toog lu yàgg ñëw jafe ñun nag ñu ne nañ ànd ak équipe bi yëpp ñëw fii def fi fukki fan ak juróom bu ko defee fas yéene faj waaye ci biir loolu am ay yeneen maanaam taw tawféex yoo xam ne da cee am ndax am na ñoo xam ne tamit faj gi fii ku ne xam ne ni dañ koy limité ndax day am nombre boo xam ne bu ñu fay amee rek dañuy xam ne buñ ko dépassé daanaka duñ ko. mën a jeexal ci bis bi ba tax na dañuy dëpp ñeneen ba bis waaye yooyu yëpp nag moo tax ñu taamu aajuma ak ñu taamu ajjuma yi nga xamante ne daanaka duñ ko liggéey ci daayira yi nga xamante ne ñoom la ñu ñu ci Serigne Fallou Rahman ànd ko ñoom it ak daayira Fadilatu ñoom ñëpp di ay daayira yoo xam ne macha allah rabbi ñoom ñëpp ñoo yam ci kanamu euh, sëñ Abdourahman yam ci suñu kanam ñoom ñëpp amuñu xaaj seen ci kon nag nañ xam ne ñaari daayira yooyu benn lañu lii kii rek li tax ku nekk am tur rek mooy mu ngi mel ne kii daa féete wet gi di liggéey kii féete wet gi di liggéey mu ngi mel ne daal ñaar ñu bokk benn kër te bokk ñu nekk waaye ëtt bi ñoo ko bokk ñoo bokk buntu kër gi loolu rek mooy mooy mooy différence yi waaye daayira yi benn la ñëpp a yem amul xaaj ak seen kon nag loolu na ko ñëpp xam ñoom ñoo ñoo lëkkaloo doon benn ngir bëgg a yaatal liggéey bi nag fas yéene jaam ñi nga xamante ne am nañ yéen ci sëñ Fallou Rahman sopp ko ak ñi nga xam ne yàgg nañoo bëgg mu ñaanal leen ci ndox ndox mi nga xam ne kemaan gu ne xew na ci defe naa ne doomu yëpp xam nañ ko gis nañ nit faj ci aajo gu te lépp suñu borom la rek koy waxee ndax ñun moom ay jaamu yàlla lañ rek waaye nag suñu borom ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax ba ñu jagleel loo xam ne doomu aadama yaa ngi ciy gis seen bopp ci lépp kon nag ndox moomu dinañ ko maanaam génn. incha allahu rabbi àjjuma bi ñu jëm ci kàttanu yàlla nekk la deux ci tàkku saan lañu bëgg mu tàmbali ndax ku ne xam ne ni jamono xat na te ba guddee rek day metti ci ñëpp mag ñeek ñi nga xam ne dañoo war a dem toppatoo seeni kër wala seeni doom war a xëy jàngi ak gone yi yërmande gi ñu am ci ñoom ñoo tax ñu bëgg koo def tàkku tàkkusaan incha allahu rabbi ñëw fa ñaanal ñëpp gratuit ñaan goo xam ne amul dagg amul fay dara ku bëgg dagg nag wala nga faju da ngay ñëw fii balaa la boobu ndax bu ñu fa jógee yaakaar naa lu ñu ci teg rek dañuy dellu ndakaaru waajali màggalu Kazu Rajab na kon ñu ngi fii ci grand standing ci boore hôtel Kan Masamba wati watu kër Pape Mar Diop pap Mar Niang soo ñëwee sax ba ci hôtel bi boo laajtee gardien bi dina la wax fan la nekk kon nag ñu ngi fi ba incha allah rabbi àjjuma jooju noonu ba ginnaaw àjjuma la ñuy jéem nan def ba maanaam waaj delluwaat pour dem màggal insha allahu rabbi kazu rajab kon nag di wax ñëpp koo xam ne daal yittewoo nga jëmm yi wala nga bëgg ñu ñaanal la insha allahu rabbi na nga ñëw foofu dañ koy def ngir yàlla rek ñaan gratuite am na nag ñoo xam ne yërmaande gi ñu am ci ñoom ak nit ñi bañ ñu sonn moo tax fàggu nañu ay ndox ngir di ko fa wecceeku ngir nit ñi bañ a sonn ndox moomu nag man dama ci ñaan avant sax ndax mu ngi fii saa ay ma xëyee dinaa ci ñaan ba noppi ku ñëw tamit ma ñaanalaat la ci nga am ñaar ba pare ñaanal sa jëmm kon nag loolu ñu ngi xam ne ñu ngi koy ñu ngi ciy woo ñëpp yàllaay kese moo tax ñu koy def ak jaam ñi nga xam ne mënuñu ñoo gis te am ci ñun maanaam cofeel lool ñu xam ko tamit ñu nit ñu am ci ñoom cofeel moo tax ñu fas yéene di jug defal leen ko loolu maanaam ñaan te yàlla rek tax àndi kook ñii nga xam ne ñoom la ñu yàlla booleel xam na mënuñoo dem bàyyi leen ñoom mënuñoo dem bàyyi ñu ñuy ay jëwriñ te li ñu boole di liggéey Sëñ Tuubaa képp ak lislaam ak ànd bu wér a wér wér kon loolu tax ñu ngi ciy woo ñëpp insha allahu rabbi bu ñu fa jógee nag ci kàttanu yàlla xam naa am na suñu wóolare woo xam ne at mu ne saa ñu demee foofu faw ñu jaar fa ziyaar ko muy sëñ fàllu Fall Assane Mati Baal ñëpp xam suñu diggante moom insha allah ñu jaar nañ fa jaar këram rek ziyaar ko waaye loolu ab nuyoo lay doon rek daal di tamit tënku. ak euh, suñu bàyyi fàllu baan nga xam ne daa bokk ci mag ñi démb rek ñëw na fi di kilifa moom it gu mag fekkee jamono yi sëñ Tuuba moom it bëgg nañu jaar fa rek nuyu ko nuyu bu gàtt incha allahu rabbi comme juk yombut ci biir loolu nag ñuy sant ñëpp ñi nga xam ne ñoo ñu taxaw muy daayira yi ñu yàlla booleel fi nga xam ne lépp rek ñoo ma ñoo taxaw ñoo yor liggéey bi di sant seen a Diop. di jàmbaar lool taxawuñu bu ñu fi ñëwee daanaka yitte ju ne lay bàyyi nekk suñu yitte ba koroog ñuy dem fu ñu nekk moo fay taxaw di ñu wuutu ak di ñu wuutal fu ñuy nekk ak yëpp laataa ñoo ñëw bu ñu jógee ci loolu tamit di sant bu baax a baax mbay Sincère moom i nit ku baax di suñu wóllëre saa yu ñu ñëwee démb rek bi mu fi ñëwee dana ma lu tax jëloo hôtel bi la mu ndax ma fi ñëwee daf may jox hôtel bi ba koroog muy ñibbi moom it ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm Mor Gueye sopp na bi di suñu wóolëre nit ku baax gis nañ taxawaayam duñ ko fàtte mukk ñu ngi koy sant di ko gërëm di sant bu baax a baax soxna Margot Ndoye nga xam ne buñ fi ñëwee ba ba ñuy ñibbi bis bu nekk xéewal yi ñuy xéewloo kenn du ko ci jiitu du koy indi su suba ngoon maanaam guddeeg bëccëg sonn lool bis bu ne mu gàddu reer boo xam ne ñëpp a ciy xaj indi ñu ko waaye duñu fàtte mukk yore Sidibé yore Sidibé mi nga xam ne suñu xarit la bu ñu fi damay dem ba yërëm ko ndax bu waxtu wu ne ñëpp ay gis teraangam chaque jour reer bu nekk dina ko fi indi ak xéewal gu ne ak di ma laaj loo bëgg yëkkati ay nag ak lu ne jox ma ko àddee yóbbaaleel Touba loolu lu rëy la kooku kenn mënu koo fàtte sii di di suñu wóolare ñëpp xam nañ suñu digganteeg moom moom it am ci taxawaay bu rëy ñu ngi koy nuyu baax di ko sant di sant Souleymane Faye mi nga xam ne fu ñu nekk mu ànd ak ñun ñëpp teg nañ seen bët doon suñu mun nañu koo fàtte moom it wax dëgg yàlla jàmbaar la ñu ngi koy nuyu baax nga xam ne suñu njëkk a ñëw ci moom la ko yàlla jaarale di sant bu baax madame saw madame saw moom it ñëpp xam nañ suñu diggante ak moom doon jàmbaar nga xam ne daanaka jëf yu bari da koy jëf ci suuf seq ko ak ñun te yàlla rek tax muy soxna Mariama Sidibé moom mi ñu ngi koy sant bu baax a baax ci taxawaayam di sant bu baax soxna Bintu Cuun ak boroom këram ñoom it boobu ba tey bañ fi nekkee ba tey noppaluwuñu ñu ngi am taxawaay bu rëy ak yaa Seyda mi nga xam ne moo dëkk fii soxna Ndey moom it doon jàmbaar duñ ko fàtte mukk ak Badou Diagne mi nga xam ne tamit nit ku baax la saa yiñ fi ñëwee ci at mi nga xam dañ fi ñëw rek muy mois de juin bi passé at mu ne ñu koy def nga xam ne ziar lay nekk ñetti fan amul faj këram la ñuy nekk mu yaatal ñu ñu def fa ay fan du ñu wutal frontière moom sax day làqatu ji bàyyi ñëw lépp kon kooku ameel nañ ko cant gu rëy rëy ak képp koo xam ne rek suñu wóolare xol nga te yàlla boole ñu ñu séq teraanga xam na di sant baax maanaam ñi nga xamante ne ñoo nekk ci dëkk bi yaatal ñu lu ci mel ne préfet yi di sant préfet Moussa Diagne ku ne xam ne ni nekkoon na fi waaye ba mu fi nekk tamit yàgg nañoo taxawu taxawaay yu am solo ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax ak ki ko wuutu moom it ñu ngi koy nuyu di ko ziar di sant bu baax a baax tamit euh, ku ci mel ne commandant Sow ku ci mel ne commissaire saw moom it nekk jàmbaar lool nit ku baax koo xam ne suñ fi ñëwee daf ñuy taxaw am ci ñun taxawaay bu am solo di sant com commissaire Niang bu Medina Fall moom it doon suñu wóllëre fu ma nekk mu fekk ma fa Touba ak fu ne bu ñu ñëwee mu ànd ak. ak maanaam élément yeeg ñoom ñëpp dañu taxaw ak commissaire yeeg commandant yeek ñoom ñëpp commandant Cissé duñ ko fàtte mukk di sant bu baax a baax préfet euh, fay moom mi nga xam ne tamit mu ngi fii am taxawaay bu am solo nekk ci boobu ba tey wax dëgg yàlla sonn ci autorisation bu ñu bëgg mu defal ñu ko ñu ngi koy sant baax a baax di sant tamit préfet Abdoulaye Sy nga xam ne suñu xarit la fu ñu nekk mu fekk ñu fa moom it wax dëgg yàlla nit ku baax ñëw fii ziar booleeg yëkkati àddiyaam ju bari jox ñu ko moom it ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax ak mbooleem soppeek ñëpp xarit yeeg am di jàmm yeeg sant télé yi nekk Thiès yëpp Thiès Média ak ak ñëpp damay bañ a lim waaye ñëpp samay nit lañ ñoom ñëpp xam naa niñ ma taxawoo am ci man cofeel ma xam ko bu baax a baax li nit ñi wax rek na ma yow moom da ngaa féetewoo Thiès yàlla xam na nii ren njaareem moo programmé woon <laughs> ak yeneen dëkk yi bare bare bëri waaye sëñ bi naa xëy rek ne ma appel yi ma jot cees ku nekk ne su ñëwul moom bu ñëwul moom xam naa dina doy waar kon mu ne ma demal cees rek waaye ren dañoo fas yéene woon mosal waa njaareem kon at ba at la ñu ëpp li ñuy génn ba koroon nag bu yàlla dogalee nag incha allahu rabbi makkaan yi nga xam ne moom la ñu bëgg fii yàlla gën koo yembal su boobaa nag xëy na bi dina gën a yow incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullah kontaan nañ lool jërë ngeen jëf xam naa dañuy bàyyi rek jëwrin yi ñoom it bu ko defee ñu yeggale seen euh, waxtaan wax li nga am naal ci bis bi kon sama xol sedd na lool di sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf. maaleykum rahmatullah ginnaaw ban sante julli yonente bi sant suñu ñaari waajur dañu sant seen Tuubaa bu baax di sant suñu sëriñ sëñ Abdou Rahman Mbacke di sant suñu wasila sëñ Fallou Ndiaye Rahman di ko ñaanul gudd fan ak wér waaw di tey woote bi nag woote bi ñu ngi woo waa Thiès ñëpp ñu ngi woo waa Thiès ñëpp ak gox yi wër cees yëpp ñu ngi leen woo le deux ajuma terrain tund cité Ousmane Ngom terrain tund kenn bañ kaa wute ñi nga xamam na ñi nga xamul am na jafe-jafe pour gis sëriñ bi ñoom ñëpp ñu ngi leen woo képp ku fa ñëw di nga gis sëñ bi mu ñaanal la say ndox waaw ñaan yi nag am na solo lool parce que ñaan yi defam nañ ko fële cité ouvrière def ko kër Saneex def ko mel ni kër ko mel na Fall defam nañ ko fa def ko ay bërëb yu bari waaw ba Caaroy sax def nañ ko fa gis na ni muy mel kon ñaan yi defe naa nit ñi ñu ngi siy gis seen bopp bu baax ñaan am na solo bu baax moo tax ñu ngi woo mbokk Thiès ak lu wër Thiès ak Sénégal yëpp ñu ngi leen woo le 2 cité Ousmane Ngom terrain tund. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim allaahumma salli wa sallim wa baarik ala sayyidina walana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci sangu sangu yi Seydina Muhammad alayhi salaam ñu ngi san Sëriñ Tuubaa Xaadimal Mustafaa bu baax a baax di kennal maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Euh, di ñaanal umma islamique bi yëpp euh, yow rawatina mbokku jullit yi ak mbokku taalibe yi di ñaanal suñu mbokk yi nga xam ne ñoo ngi si njàngu bi waaw di ñaanal réew mi jàmm ñaanal àddina bi yëpp ci barke borom Tuubaa comme ko kilifa gi waxee euh, sëñ bi dafay ñëwoon jugee Ndakaaru ci ndigalu sëñ Abdourahmane Mbacke ànd ak nga xam ne ñëpp ñoom la ànd si liggéey bi indi leen fii si Thiès ñëpp xam nañ ne sëñ bi jógam yombul. suñ fàllu parce que ñu bëri bëgg nañ koo gis mu xaw a jafe ci ñoom lool lem bi mu bàyyi lépp bàyyi coono bàyyi lépp ak ànd ak njaboot gi ànd ak ñi mu liggéey yëpp ñëw fii si Thiès pour dimbale jaam ñi waaw te loolu ñu ngi koy ànd ak nag ak ñi nga xamante ni ñooy soppe yi ak wëllëre yi nga xamante ni ñoo nekk si bi biti cees muy daayira soppe yi ak daayira Fadilatu waaw ku ci mel ni man mii di wax ak yéen eh, muy jawriñ Mbajik waaw numéro téléphone bi 77 692. 0866 ak jëwriñ Souleymane mooy 77 682 12 60 ñi fas yéene def euh, liggéey bi ci terrain tund ñu koy wax Cité Ousmane Ngom waaw fas yéene koo tàmbali ci tàkkusaan waaw soobee yàlla xam ne sëñ bi dafa bëgg daal ñu teel a tàmbali parce que ñëpp ñi nga xamante ne rek maanaam gis ko moom day jafe lool waaw te dem Dakar métti lool mu def ko benn def boo xamante ni képp ku fi ñëw rek di nga la ñaanal gratuitement ñaanal la ci ndox mi ñaanal la yow sa jëmm bopp waaw kon nag loolu yaakaar naa ne lu mat a euh, teewee la waaw di si di wax ci bépp julli yëpp daal di leen wax daal ñi leen ñaan daal yéen ñëpp ngeen ñëw. rajim bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñu nuyoo ba sant ñu ngi nuyu sëñ Abdourahmane Mbacke di ko ñaanal mbàkke mu yàgg fi loo tànde wér di ci tofta suñu sëriñ suñu wéeruwaay suñu xel mu dal. suñu sëriñ sëñ Fallou Rahman Ndiaye du ko ñaanal moom yàgg fu lool te ànd wér moomu njaboot yëm waa di wax euh, ni bis bi ñu ngi woo ñëpp bis bi kañ la le fan ci téere tund man nag damay euh, wow suñu ma mbokk jigéen ñi waa Medina Fall waa zone nord képp koo xam ni yaa ngi fii ci Thiès te nga yor njaboot te nga bëgg njaboot gu ñu aar leen maa ngi di woo yéen ñëpp ni ngeen ñëw ci bis bi la deux incha allah ndox ma nag ma fa bu boobaa incha allah. sëñ bi ñaan na ci te bu ci ñaanee tamit bu ñëwee tamit dina ci ñaanaat maa ngi leen di woo mbokk jigéen ñëpp ñëpp na fa ñëpp ñëw teew fa teel a ñëw di h lay commencé ñu teel a ñëw teel a ñaanal ñëpp ndax sëñ bi njëriñ kese la moom cees da koo bëgg te ñun tam dañoo bëgg ngeen am ci njariñ gi ndax sëñ foo ko fekk danaan nañ yaatal moo tax ñu ngi woo ñu ngi woo ñëpp di woo waa Parcelles di woo waa Medina Fall di woowaa R100 ñëpp bàyyi ma kenn surtout sama mbokk jigéen ñi dama bëgg ngeen ñëw yéen ñëpp ndax ngeen mën a am ci ndox mi mën cee am seen njariñ njariñ ñi boroom kër yeeg ak euh, xale yi surtout